akademis yi wax ne xadiisun xasanun saxiix hadis bi dane ku woor nga jox ko ndogu maanaam dal boo joxe ku ndogu yalla fay la tuyaaba ju tol ne tuyaabay kookee wor te lola kat du wañi dara ci yi bopam mom ka wor man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء برينك كوار بوكو جخين دوغو أم تياب جتول ني تياب أم كي دفيني لنكوي جخوا أم تياب جتول نونو تاورا تولو ري ري تفكنا بودي اللوشي نتلب النسائي ابن ماجاك ابن غزيماك ابن حبان ابن خزيمه netle moy man jahaza ghaziyan aw jahaza hajjan aw khalafahu fi ahli aw fattara sa'iman kana lahu mislu ujurihim min من an yanqusa min ujurihim shay'un wa qala fi hadith salman الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه ومن فطر فيه الصائما يعني في رمضان كان مغفرة لذنوبه وحتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزغة لبن تي نتلي بوبو داني كفاك كوبك دمتي جهات تيون يالا نغا واجل كو مانام جوخكو لومتا مانا دمي با كفاك كوبك أجي تمنت أجي nga dimbalee ko lu mu aje ba sax nga wutu ko ci kërëm taxawul ko njabootam ci gannaawam mu tekke nag wala ku fekk ku woor mu jox ko ndogu yépp loo ci def rek dal di yem kooka tuyaaba net li benn moom bam ne ku woor day boo ko joxee ndogu da nga am tuyaaba ju toll ne tuyaabaam moom ma woor te du wàññi dara ci tuyaabaam saxaaba yi dañ ko ne ah jox ko woor ndogu day du ñépp ko man am na ñoo xam ne day duñ mën a jox ka woor ndogu ndax yooyu jamono daa ñëwutoon xëy na ñenn ci ñoom rek ñoo xawoon jekk jekkuk dimbali keneen waaye ñen waaye ñenn ña mënuñu ko woon yonent bi ne leen ka woor moom boo ko joxoon benn tàndara ma sax mbaa ndox rek mu naan man nga ne goxum ndox mbaa ndox mu xaw a neex niki ndoxum bisaab mbaa limon mbaa leneen mbaa njarum soow loo jox ko woor rek dal di am tuyaaba ci tol ni tuyaabaam te loolu du wàññi dara ci tuyaaba yi kookee woor loolu mays na cee dégg ne nit mën naa xeeb lu baax fekk ñàkk xama tax ndax loolu jafewut te yàlla day def néew li nga xam ne am yomb ko bu joxee tuuti rek tuyaabaam day rëy lool ba ëpp sax tuyaabay ka joxe lu bare bare bari te fekk na am amam moo tollu noona